jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaan ci yéen ci wóolu te gi ngeen ñu wóolu euh, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax na nag tey maa ngi fi fii Parcelles Assainies toog ki nga xamante ni mooy Bébé Garga su ma nee Bébé Garga nag sama xel day dem ci lu bari ndax sama première émission wasaare làmb maak moom mii ñoo ko tourné woon te yàlla dogal na bi mooy deuxième fois dama koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan wi Ouz Garga naa maa ngi lay ziar maa ngi sant bu baax a baax gannaaw bu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sumay ñaari waajur di fan di sant ñi ma bokkal famille ak fii ma nekk suma kër yaay di sant suma yaay Mari Mbay bii ma dalal fii ak ay doomam ak faala mee ngi di gërëm suma yaay di gërëm suma staff tamit ku ci mel ni Petit Ro laay usu bébé jës borom Brésil tamit du ma ko fàtte ah maa ngi gërëm waa Mbuur Malikunda di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Ñaaxar fàttewu ma leen waaw fàtte fàttewoo waa ñaaxaar mais su ma bëggee ñëwaat Kajoor tuuti parce que gars yi gën nañu laa gis ñu ma fàttali ñi nga xamante ne ñooñu seetaan ci Wassare Lamb Ouz Garga mooy kan ak ñaata combat la def ak ñan la jot jot a bëreel waaw Ouz Garga nag benn xale bu xale la rek bu dëkk parcelle toppoon ci ginnaaw Garga Mbossé ak Zoss bëgg bëgg làmb ba yàlla dugal ko ci làmb tey ma def six combat benn défaite ba caatu caatu waalo moo ma daan ma daan carrière Baba Yo booy Niang 2 Boy Jolof ak Ahmed Dem 2. Dem 2 waaw. Euh, kañ nga dugg ci làmb. 2016. 2016. Uh-huh. booba ak léegi nga def ci sept combats mais ñu gis la nga jël combat ci combat boo xamante ni daanaka yegsi na sax parce que le onze bii la ci diggante caat ak Modja jëli woon naa ki nga xamante mooy caat ak Modja booba ak léegi la moo tax ñu gëjoon la gis sa combat yéexoon taxaw. waaw Ouzin c'est Sénégal xamuñu daanu daan lañu xam. làmb dafa baaxoo boo daanee dem boo daanoo taxaw loolu mooy làmb sama dernière sortie dama ko ñàkkoon du ma ne metti na ma du ma ne mettiwu ma ndax ku ne jullit nga te ñi ma daanoon gënuma leen tamit yàlla moo ma doon may ndam moo ma xañ ma santee ko yàlla dem toogaat ak sumay mbokk làqatuwaat dem entraîner préparé waat sama bopp pour ñu bu ma ñëwaatee ñu gis beneen garga encore. mais ñu gis la dafa mel ni poids bi da ko xaw a yokk. xëy na yéen loolu ngeen gis man gisuma poids ndax man lu ma bëgg def maa ngi koy def. mais da yokk. moom mooy li ma la mooy moo tax ma ne la yéen a koy gis mais man mii mënuma koo gis ndax man bu dee tëb la damay tëb bu may contact lu waay def lu waay def dama koy def. mais damay dégg ñu bëri ne Ousmane Xale la euh, forme bi mu yoon wala taay bi mu yoon mën na koo maintien ba ci kanam kanam. waaw Ousmane xar day weesu mbote. Sa Thiès premier combat am ñaata kilo la. xoolal Sa Thiès premier combat am nga xool état bi mu yor ak état bi mu bëreeg barki dem Moussa Ndoye wala nga xool ko ci Garga Mbossé ak Bébé Saloum Garga bi muy bébé ba muy bëggee bëreeg Bébé Saloum ak bi muy bëreeg Moussa Ndoye est-ce que ñaari état yi benn la man ñaanuma yàlla ñu may dundal toujours ma nekk ci benn rythme bu man damay ñaan yàlla chaque saison bu tijji damay indiwaat beneen état bu bees parce que loolu mooy yoon. mais leen gis bu ñu commencé jël poids entraînement ngay xaw sa yaram day xaw nagam. li maanaam li nga doon sëfoo sa yaram doo ko mën a teg mais est-ce que rythme ba nga daan entraîné moment bi moom ngay continuer di liggéey. Ousseyn man ba corona bi ñëwee ba tey tooguma maa ngi woon gendarmerie bu Mbour foofu laa doon entraîné bàyyiwuma benn yoon li ma daan sëfoo wallaay barke Serigne Babacar lu ko raw laay sëfoo ndax dama am ay ñoo xamante duñ ma may jàmm duñ ma may salaam fu ma dugg ñu génn ñu loqati ma. te dañ may yenn loo xamante man sama jëmmi bopp damay dem ba yaakaar ne ñii dama naan bëgguñu ma déedéet sama njëriñ parce que moom lañ lay wax bu mettee fii rek yomb fële bu yombee fii nag boo demee fële day saf sap mais ñu gis làmb ji euh, Ousmane woon na Bébé Garga woon na weesu fii euh, ñu jékki gis la nga jël ki nga war a bëri nu mu tuddati sax. Modou Tine Bodi. Modou Bodi ñu gis la nga jël ko lan moo dugal ci moom. waaw mooy li ma bu ma toogee damay année balance te fu mu toll nii suñu suñu morom yi ñoom ñëpp ku ci nekk dangay taamu dangay taamu koy bëreel ñun ñooy sooy moom ñoo ba ñuy taamu. mais nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg bu dëgg neexee yàlla rek Ndiaye Tine daf ma war a may chance suñu sama naataango la. bu ñëw fii fii neex nga ma waxi Ndiaye Tine Ndiaye Tine day day de. xam nga dinaa la yëgal ñaar Ndiaye loxo la yor ma yor loxo defe naa kurpeñ boo koo dóor ci yaram yëpp lay metti Ndiaye ku ma war a may chance la Pape Ndoye dafa war a ñëw ñu bëre. Jackson mii nekk fii di di di teel teel na ñëw ñu bëri su may morom lañu xam nga problème bi mooy di taamu fii ay adversaire mais xam nga luy problème gaay yi dañuy xool fu gën a nooy ñu dem jël ko ñëw daan toog di xaar amul njëriñ man dama doon damay ñaan yàlla Gaston mu mu jël benn kalaaf boo xamante ñun booyu saf sàpp lay boole benn kalaaf billaahi wallaahi boobaa man de man de li ma ci jaaxal mooy feebar yëpp dañoo dajaloo nga tànn Siteu ay Ndiaye Tine ah ay Jackson ay Pape Ndoye man ay xeexkat dong nga fi limal xam nga lu waral lool boo yombee ci suuf boo demee ci kaw say morom dañ lay dañ lay dañ lay delloosiwaat day metti trop ñu wàccewaat la. da nga bëgg daal moment bi ngeen toll ngeen jëflante ñi génn génn ñi xaar xaar. merci beaucoup affaire bi nañ ko nañ ko nañ ko def match Europa rek ñu war a qualifier final qualifier ñi war a dem deuxième tour dem tour ñi nga xam ne dañuy dem dañuy dem toog ñu toog. xam naa ne Pape Ndoye bi ko Jackson daane ba léegi kenn gisu ko kenn dégg ko kenn xamu ci la nekk Ndiaye Tine tamit moom moo ngi ci comme di entraîner Jackson moom am na combat ndax moom naa la. waa xoolal xam nga ay mag la ñuy jël ay naaru sokaas ay Tyson 2 ñooñ la ñuy wër di leen jël pour mu neex ma wax la benn affaire mooy li ma mooy li booy Boy Niang waxoon rek nee nañ def grand contre petit wala ñu def petit petit ñu xool fan la fan la affaire bi di di génnee mais pour jël ay grand frère di leen booleeg ay booy da lay leer ne naaru sokaas ak Jackson loolu du lamb Jackson daal kon kon yow daal su ma déggee mooy ni idaali doxalee tournant bi loolu ànd nga ci. non si. na yàlla dafa neex. Ousseyn Diop dana Ousseyn Diop nañu waxante dëgg Modou loolu ko génne. Kalaaf Balla Gaye Zos. Garga Mbossé. ana mu tey. mais kalaaf lañu kala mais kalaaf lañu lañu tegatul ci làmb ji. léegi dangay ngay ñëw jël benn jël ay ponkal fay leen cent millions ñu tegante ay mbagg di buuxante di buuxante ba kenn rocceeku morom bi rëpp ñu ne jeex na ku nekk dem ñibbi. léegi booy ndaw yi nga booyaleeg ponkal yi booy booy yi war a ñëw wane seen bopp téye ponkal yi di bët di fàq di sukkar bi ba làmb ji di toj. léegi yow nga jël say million fay ko benn pon ay ñaari ponkal ñu ñëw léewtoo ba seen loxoy toog ku nekk songu apart tegante épaule. amateur yi sax dañu mujjee sonn. xoolal xoolal xoolal xoolal ba combat yi ba saison bi tijjee ban combat moo njëkk a daw. xaw ma woon combat njëkk a seen la de guerre. boo xamante barki sëriñ Babacar si laa la waatal fii laa ñëw Dakar combat bi fii laa ñëw 5 heures 19 no non 20 heures laa fi déparé jëm mbuur dem naa Mbour ba toog te combat bi jeexul. <laughs> billaahi wallaahi affaire bu ma jaaxal. après ma toog jékki-jékki ci TNT laa ko doon seetaanee ba ma yeggee Mbour ma jékki-jékki dégg ñu naan xaw ma joxe nañu kan par par décision arbitre la de guerre 2 mais lii lii nañu waxante dëgg tamit te ñu ne dañ leen fay xaalis bu bari ñu def ci liñ ci def ba pare ñëw taxaw buuxante ba seen xool sedd koo ci dóor mu reculer morom bi naan parewu ma woon. mais naka ngay waajalee sa combat bi nga jëm. dafa wute dafa wute trop lu tax mu wute mooy dafa fu ma jógee am fu ma jëm kii nii may bëreeg nii muy mootin moom du làmb làmb boolewuñ de. du làmb te nga jël ko. di waaj waacaay lu metti lii. waaw mooy li ma la wax moo tax ma ne la làmb boolewuñ xam nga boo déggee ma wax la ko xam nga Sa ne woon na si te xaay sanu boole. Mhm. mais du làmb kii maam moom làmb boolewuñ ndax bokkunu yoon. lan moo leen boole. voilà dafa am fu ma jugee damaa jugee ci defet ma xam ne bu ma toogee ñu naan ma kii nga war a bëreel ma naan lool kii laa war a bëreel làmb ji dafa xat fu mu toll nii mhm. pour nga am date boo bëree dafa metti boo toogee loo toog lu nekk ak yaa ngi perte. loolu laay bañ. te damay ñaan yàlla jugéeb ji bii bu neexee suñu borom ci guy gi rëg-rëg dama cee bëgg a dugg incha allahu rabbi moo tax ma ne la kii man ak moom yàlla xam na ne làmb boolewuñu maa ngi ñaan nag yàlla yàlla may man mais attends attends Ousmane wala boog Bébé Garga lan mooy problème dafa am loo xam ne dañ la koo déy wala sa xel dafa dal wala naka la demee noonu yow yaa ngi dugg ci mot ba di génnagoo ci xaw ma mootin génnaguloo ci di wutaat zuna jàmb buy dugg waaw xam nga déyuñu ma dara Ousmane man damaa gëm suma bopp ba may départ di bëre fii la la fekk. Mhm. lu ne ngay dégg booy bu demee ñemewul ko nangam ak nangam. Ah, lu ne lu de dégg naa ko man mii. voilà te pourtant bu ma duggee ci géew damay mel ni gaynde bu ñu sotti ndox mu tàng lu ma waaye def ma man damay jàpp rek dem sama yoon parce que loolu laa gëm man loolu la ma suma suma suma suma suma famille jàngal. naka nga na jëflante ak Modou Body. waaw dañ xam nga làmb ju ne ak ni nga koy bëree. Hmm. moom wax na. lan la wax déglu nga ko. lu naa ko bu baax nee na moom ku ne xam na philosophie duma ko mën sa morom duma moom loolu lay joobee nee na ma na nga dëggal sa bopp loolu nag wax ju yàqu la rek mi ngi mel ni ngay laajte ndax Macky Sall mooy président ba tey. moo ñu waaw léegi loolu wax ju yàqu la ndax gar ndax garga day taxaw ku ne xam na ne mosuñu maa dóor ma sàqi wala ma reculer. kon moom su ma déggee wax ji dafa bëgg ngeen suul seen i tànk taxaw jàkkaar. loolu ci moom la des mais nag na xam ni man duma ko may lu toll ni virgule mais moom it lu ma may dootu ko defati ba keroo muy dee te làmb ji bu bëggee mu neex ci moom la dépendre bu bëggee mu gaaw tamit ci moom la dépendre ndax man bu arbitre sifflé man damay dagg jéngi man damay dem. kon bu yoboo moom na la xaar wala ngeen tase. bu neexee mais pour mu neex moom na jël responsabilité am rek man bu ma daggee jéngi yi ñëw rek na ñëw ñu ñu daje làmb ji toj. parce que wax naa ko bu ngeen ni ngeen ko waxee de bu ngeen ko doxalee nii du ngeen ñu fi yàgg. yàlla xam na ne wax naa ko prince nee naa ko pour làmb ji moom la des prince ah, ma ne ko waaw ma ne ko bu ko neexee dañuy bëree bëree bay lang xam naa ne bés ba dina neex ndax bu ngeen di bëree fii Wally Seck taxawee nee loolu beneen affaire la. moom laa ko wax xam nga problème bi mooy des fois nit nga dégg ko nga nga ñëw mu am bëree moom ñëw ñu boole ko adversaire mu ñëw ne tekk di xaar entraîneur yi bu nu yàqal nan bàyyi xale li nekk seen fit ñu génne ko ak li nekk seen maañ. ni ngay doxalee de bu ko mbëri ndaw yu bëree du nga ñu fi guddeel te làmb xale yi day neex. man Ousin Diop yëpp ma samay supporter yàlla nag moom yor ndam mais bu ma ñëwee damay def fulla ak li ma yà lu ma yàlla jox ma jël mais yëpp ma sumay supporter ñoom xam nañ ne mosuma leen tardel yow fi nga fekkee yëpp yow li nga fekkee yëpp mosumaa tardel benn supporter bu arbitre ne prib damay dem wala ñu ñëw ma jëfe wàllu musique bi foo toll loolu du man maa ci wax ndax nekkuma ci côté boobu man dañ maa sas ne ma demal entraîné ñëw lekk tëdd yàlla xam na ne wàllu musique xamuma ci dara. bañ damay bañ ñu naan dañ koo jàpp ak dañ koo nii combat bi dafa yomb. jóob ku ñu jàq ku ñu jàpp du ñàkk. ku ñu jàpp du ñaq. kuñ jàpp ku jàpp foo toog da weex taal di liw rek man nag damay sant yàlla du ma ne kenn mënu jàpp ndax amul ku ñu mënta jàpp. Hmm. mais damay sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax. lan ngay wax lan ngay wax say supporter ak ñi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan. waaw su may supporter la ma leen waxoon laa leen di waxaat rek mooy newoon naa leen bële paase man maa demoon di bëre ji hmm. mais bii yoon mbër mi mooy bëre ji dégg naa la Ousseyn Diop barki Serigne Babacar combat bi damay damay wane ne man damaa mën a bëri kenn du la wax ne man damaa mën a bëri mais damay wane ne man damaa mën a bëri. kon bu yóbboo daal gaa yi xaar beneen Garga mboosu bu bees. wallaahi dinaa dinaa bëre ba public yëpp jóg bu laajee xeex danaa ko def lu ma lu ma laaj dinaa ko def mais dinaa bëre ba tribune bi yëpp xam ni bébé Garga bi bi woon woon moo ñëwaat. mais ana ana sa turandoo Garga Mbossé kenn gisu ko kenn xamul ci lan la nekk ana mais mi ngi fi. man fii mi ngi États-Unis comme ay moromam. Euh, waaw lan ngay wax ci diggante moo Sa gannaaw moo Sa dox nañ ko doxati ko doxati ko ba fi mu toll nii Sa Thiès te la mu duggoon génn na ci. te ñoom ñaar lañ doon wax lan ngay wax ci combat boobu Sa Thiès Garga Mbossé. promoteurs yi nañ dem seeti Garga ak Sa bon Sa Thiès moom nee noppi na ndax combat bi ci Garga Mbossé la yàqu. non non yaa ah, moo jubóo ci wàllu prix. waaw xam nga tamit moom nee na noppi na looloo tax Moussa Ndoye ñëw di. waaw xam nga du ma jël téeméer dem di ko yóbbu marché wala togg ceebu yàpp mënta sotti Sa Thiès du combat bu tool nii combat bu toll nii la la moo leen séparé tali. kon derby la daal. du du ñoom ñoom ñoo la ñoom waa Sa ñoo la ko gën a yomb ñoo la ko gën a xam xam nañ ne derby la mais nag mbër Ousin làmb dafa metti hmm. mbër da koy faylu ko jar mu sacrifié yow ñëw bëreel la mais tamit du ma jël engagement boo xamante damay bëreel ku ci mbër mu mel ni Sa Thiès ah, dem jël benn somme boo xamante dafa may leer ne après man damay damay damay am am classement avant combat bi ma perte lu bari mënta nekk làmb dañ koy wàcc parce que loolu mooy yoon Garga Mbossé du mbër mu ndaw Sa wax nopp làmb ju neex lay doon ndax xam naa ne Sa day dem te Garga ay tànkam kenn du ko laal. waaw promoteur nañ teg xaalis bi ci table bi xaalis bi ñuy jël di ko jox ay paa yi di leen fay ay cin ay. xaalis bi paa yi ngay tudd fii làmb ji amul ay paa. xam ne paa yi ñuy dóor ñuy daanu fan yii kat daa yomb trop <laughs> daa yomb. dégg ngay wax boo tudd ma tudd Issa Pouye ngay wax. <laughs> wax rek ma benn tur dama ne la paa yi jàpp fii di leen fay xaalis di leen jàpp leen dóor loolu moo nekkul yoon. nan jël dégg naa fan yii sa mag dafa dugg si waat ci làmb ji muy Zos kan nga koy jox. <laughs> Eh, Zos du mag. Zoss de mënoon bàyyi na ne dellusiwaat na. waaw non ka wax nag làmb neex te bàyyi de. Ah. barki yàlla. bu gas toll nii boo ma doon jox adversaire Zoss kan nga may génne. man Zoss bu ma ko doon jox adversaire tey moog nees làmb ju neex la. nees waaw Zoss nees. làmb ju neex la. Zoss soq loo ci wax soq nee na bëgg naa. xam nga luy problème am na dem jël ay moromam. soq ña ma seex ay ñoom garga ñu ngi fi. Franc mii muy daw na ko jël lu muy daw ci Franc. Sokh keroog nee na pare na pour bëgg Franc. wallaahi xoolal wax wax waxu waxu public la buñ boo ko fëggoon trois heures du matin teg xaalis bi xam nga lu mu lay wax demal xooli Valdo loolu lay wax naan la demal essayer Valdo ndax dina ko bant bu gudd lañ koy laale Franc moom dina leen jeexal ñoom waa Pikine dina leen jeexal tàq ñoom ñëpp Sokh àdduna du neex ba mu jël Franc ñoom da Franc rek bu ñu tëddee nelaw mën na noo gént mbër yëpp ba mu des Franc. Mbadou mooy bi. waaw déggoo carrément li mu leen wax dafa leer Tyson 2 fii la toog naan Franc xam nga moom nawloowul waa parcelle Tyson 2. waaw mais mënu leen nawloo ndax dafa dugg daan góor soog ñu wax mu teg ci Garga 2. waaw jël Franc mënu leen nawloo. waaw léegi waaw léegi nag dinañ nawloo xam nga ñee da leen a jàpp daan te moom dañ koo dóor ba mu tëdd xam nga làmb looloo ci gën a garaaw làmb ak nu mu mënti demee koy bëreel rek jox ko cër. soo mën kàddu yu mujj loo ñuy wax ñu tàggatoo. waaw damay sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen woo ci suma open press la 6 incha allah di ñaanal fii ma nekk suma yaay ji di Mari Mbay yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla bàyyi koog njabootam di gërëm waa kër gi yëpp di sant suma yaay ak suma papa suma staff tamit maa ngi leen di gërëm bu baax di di sant suñu président Lat Diop ñun moom la ñu gis nañ ni mu ñuy taxawoo ñuy jàppalee xam nga di sant waa la ndaje restaurant la ndaje waa Sacré Cœur maa leen di gërëm sama tante boobu MP moom tamit jàpp na ci combat bi bu baax a baax Zeus borom Brésil ak mbay Zeus xam nga Brésil moom moo ko moom. Hmm. waaw fu mu toll nii boo waxee Brésil moom Zeus nga ci teg. waaw ah, kenn waxatu ko loolu moom kenn waxatu ko. waaw maa ngi gërëm suma staff Mouhamed Ndiaye Petit Rodo ay ñoom Paabu ay ñoom Oussou Bébé Layra sa Pape gay ñoom barki alxuraanu karim danoo sonn man xa xool damay tëdd nelaw ñoom ñu ngi dox di lijjanti combat bi nu muy sottee di woo ñaaxar ci komba bi di leen woo ñoom ñëpp ne leen combat bi seen combat la waa Mbour Malicounda mosu koro suma yaay jooju moo ma dalaloon maa ngi koy gërëm bu baax ak Ouz salle bi ma nekkoon ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen woo ci combat bi le 11 juillet man ak Modou Body di ñaan yàlla yàlla may ma ndam lu sedd guy di xam ne nag ñu xam ne nag seen doom mooy bëre ñu jàpp ci ñaanal ma bu baax mënuma dara xamuma dara kenn mënul mais yàlla yàlla may ñu jàmm suturaal ñu yéen yàlla yàlla defal jàmm ndax lii dafa rafet manax ak yow ci début ba la woon kon damay ñaan yàlla yii yàlla na law ci kàttanu Seydina Mohamed waaw. gis ngeen yii laal na law euh, noonu lañ koy kiiwee maa ngi gërëm sama cameraman bu ñaaw bi di ko jaajëfal ak fii ñu nekk yëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax ñëwoon nañ fi ñëwaat nañ fi yàlla nañ fi yàgg di ñëw di leen fi fekk ñoom ñëpp yàlla def ko di leen jox dig daje ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf.